ay ay feebar xol nu mu te biir buy metti am na leneen lu ca nekk mais bu dee ci li malade bi wax yow ci nga koy bindal ordonnance jërul mu di fa ñëw moo tax léegi malade yu bari pharmacie la ñuy dem di matuñu hôpitaux euh, ci hôpitaux yi yërmande gi waroon a nekk ci hôpitaux yi dafa des mais état Sénégal xam nañu maanaam yërmande gi ak dooleel gi ñu war a dooleel waa kër docteur dafa des xam nga lu tax mm-hmm. Mm-hmm. duñ fa fajoo waaw seen doom du fa fajoo. waaw ñoom ku ñu sopp duñ fa fajoo. seeni soxna duñ fa fajoo seeni soxna duñ fa fajoo. nunu yi yore seeni doom sax duñ fa fajoo. militant bu leen amal njariñ du fa fajoo. ku ci sa njaboot feebar ma nga ànd ak nunu. mais nit koo xam ne bitim réew. fi askan wi di di eh, di fajoo yow doo fa fajoo toppatoo ga ko war doo ko fa def yitte ga war doo ko fa def ji nga yàlla yi wallaahi rey de waaye lu ci baree baree bari ci loxo état Sénégal ci waa kër la nekk. parce que yitte yi ñu leen war a jox laa bi xoolal nit deele nañ ko jël allo allo allo salaamaaleykum aleykum salaam noo def soxna si allo allo oui allo oui salaamaaleykum aleykum salaam ñu ngi lay nuyu di la ziar na nga def soxna si yaa ngi si jàmm alhamdulilah alhamdulilah yow rek la ñuy teewlu euh, maa ngi woote usine Dentali usine an waa usine waaw maa ngi tudd Ami Ndiaye Ami ñu ngi lay nuyu ana waa usine. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. alhamdulilah yow la ñuy teewlu. Euh, li wax mooy que ne maanaam hôpital yi lu ngeen di wax rek am na lu ngeen bàyyi. Hmm? lu ngeen ci wax rek am na lu ngeen bàyyi. parce que hmm? man mii. Hmm? août bii passé dund naa fa loo xamante ne nii. woon ne am na ci àdduna bi dama ko doon dégg rek ñu koy wax. mois d'août bii nii nii. août bii nii nii. loo ñàkk naa fa sama doom le douze août. te li ma ko ñàkkee heure médecin yi la. allo parce que parce que maanaam dañ euh, sama doom loo xamante ne nii. Mhm. tey moom moo ko yóbbu. Mhm. te nanguwuñu sax assumer seen responsabilité. lan lañ ko def. liñ ko def mooy que nii maanaam boo xam ne nii xale bi daf ko waroon a naan moom lañ jël injecté ko ci voie veineuse bi defal ko ko ci perfusion bi te xale bi war ko woon a jël ci perfusion bi. garab la allo. allo oui. ma ne garab la. garab la boo xam ne daf ko waroon a naan. waaw. ñu defal ko ko ci perfusion boo xamante defal ko ko ci perfusion mooy bois veineuse bi. waaw. te loolu erreur infirmière bi la. Ah. léegi xale bi def nan. xale bi bi ñu ko ko defalee ba dem xale bi ci la nooyeetul normal nekkatul ci jàmm. waaw. te avant boobu mu ngi nàmp mu ngi nooyi mu ngi def lépp fekk dafa feebaroon yu hospitalisé ba. waaw. léegi ci noonu. Euh, man c'est que nag damay topp métier journalisme bi nag di laaj rek ba mu jeex ba topp ko ba mu sës euh, mais nag euh, vraiment doy na waar doy na waar